jërëjëf TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send nañ la may 10 euros ak code lu Lutte TV. mbokk yi suivre Lutte TV point com ñoo leen nuyu bu baax di leen ziare ñoo ngi fi Almadi 2 fek fu wulle muy waajal kombaam ak Lirou Diane Lirou jaan nag mu ngi États-Unis di yokk cere dolli ñeex dugg ci saal yu baax yi moom nag nee na du di yëg din ci béton yi lay dugg di génn gën a nàmm ay loxoom nee na bii pa xeex. moo tax ñu fas yéen waxtaan ak moom fii Almadi 2 mu toog ak ay gaayam rek ni mu koy faral di defee nee na heure bu entraîné ba pare moom fii lay jaar wara mu ñëw dugg ci béton bi <laughs> def deux heures de temps génnaat dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak yow ci combat yi nga xamante ne am nga ko yaa ngi ci cinq combat instant bi <laughs> macha allah dégg naa la macha allah maa ngi lay sant Lamine sama rak di sant waa Sénégal yëpp di sant yàlla sunu borom ju Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ xabaan Mbakke di sant sëñ takko Mbakke sëñ takko doomi sëñ Modou xabaan borom takko business compagnie bi nga xam ne day jaay terrain day luye oto takko business compagnie lépp lay def sama sëriñ la takko business compagnie di gërëm sama rak di aada Dieng boroom su suuf su baax si ak béton bu baax bi ak it xeer yu baax yi di gërëm moo du Bey ku baax Modou Bey maa lay sant bu baax di ko gërëm di grand frère Ada Dieng baax lool moom itam di borom camion yu baax camion nga xam ne bu defee béton du tuuru du sen bu defee suuf. du seen camion yi nga xam ne mën naa xëy fii dem Tambacounda mbaa mu xëy fii dem Looro ci dëkku Lamine mbaa mu jóge fi dem le Réfane moo du ma bu baax moom itam vraiment Lamine nga baal ma fii nga ma fekk fii sama palaas la palaasu aada Dieng la palaasu Modou Bey mii la. dama jaaxal dama fekk ngay soo. dindi yéeg ci béton bi di waay. saa yu ma jógee entraînement xam nga man fi léegi fii saal bi nekk euh, rond-point euh, fi Amady Dé bi fi entraîné saa yi ma ñëwee nag sama oto bi Modou Bey dana ma chaque jour nay set clim bi bu koy fayati parce que dafa tàng saa yi ma ñëwee mu sorti essence ma toog añ fi ba pare toog ak gars yi xam nga léegi maa ngi jóg di kaf di soo parce que fii ay mbër fi nekk laay bee fee. ay mbër fi nekk ah, ñii kii supporteru Modou Lo la Modou Bey waaw waaw man maa man ma ànd ak moom ma ànd ak maa ko wax ah. ma ñëw Modou Lo. kon moo xamaa ko faral. ñoom ñaar ñëpp waaye Modou Lo mooy sama xarit. xam nga man eh, léegi ñun ñëpp sama waa léegi. non non non ñoom ñaar ñëpp. Modou Lo. nga faral ñoom ñaar ñëpp lu tax ay gaayam ñooy say gaa. Lo day sama xarit dama ko jàpp. benn affaire dootuma ko bay moo papis mooy sama combat liirub jaan papis dafa ñëw bi géew bi sotti ma galaaj bi bi ma doolee lu jam dooy miti abit jox ko victoire Modou Lo dafa mer ba xool sax waaw kon Modou Lo am mooy sama mbër maa ko wax. parce que lii jaate ko sonal combat bi ma amaat Dakar maa ngi ànd ak Modou Bey xaytu Modou Lo da dana àll ji xaytu Modou Lo Modou Lo damay jàppale. Gora Sock aussi la damay jàppale. ak waa di gëna mbawoor mbawoor yëpp. moo moo loo moo daan wax jàppale bi ñoom ñëpp ci ginnaaw la ñuy taxaw yàgg liiru jaan yi des te liiru diis. man moom xam nga ne di tëdd fu man moom xam nga xam xam ne bu dee fit rek macha allah jàppale bi moom ci bi rek man moom doy naa fa la man moom du tit tiit ñoom nañ ma jàppale bi ma ma def ak liw jaan ba pare ah, afa liw jaan dama am combat Adama Diouf boobu la mu ñëw le juillet la. waaw ah, boobu maa ngi koy waajal bu baax a baax a baax. boobu nag moo gën a yéeme boobu tiital ñëpp yow. Lamine saa yu ma gis entrain saa yu ma interview da may fekk sama kër sam saal non saal entraînement bi sax damaa bëggoon mais damay nëb li may liggéey. waa loolu moo ma jaaxal nag. waaw damay nëb li may liggéey moo tax foo may jeesi fii nga may fekk ci ba bétoo beeg suuf si comme Adama Diouf si suuf laa koy daane euh, damay toog ci suuf si chaque jour comme ci. béton laa ko daana parce que beto essence boo gis béton les ko tabaxee ma ci béton bi ñii ma àndat nii macha allah bu nu yàlla naam daam parce que nag ñu baax la lañu Modou Bey di waxaat appel Lamine nañ ma may tuuti ma waxaat képp képp ku may seetaan nga nekk Sénégal mbaa nga nekk Europe nga bëgg suuf. suuf su baax di laa si kilifa yu bëri yëri sama kër Aziz Ndiaye nag ñoom ñëpp ku suuf Kara mbooj yéen ñëpp maa ngi lancé ku bëgg a tabaxlu surtout Aziz Ndiaye nga xam ne sama xarit la Aziz maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Aziz Ndiaye parce que nee na ma combat bii ma am ak Adama Diouf combat am la maa ngi liiru jaan Baye Ndiaye nee na liiru jaan la faral mais Aziz nee na ma yow laa faral parce que yow doo yàgg keroog ma dem géejewaay fekk fa bay aale. nee na doolaan. Aziz Ndiaye nee na ma a bëreel yow laay àndal parce que doo yàgg. lu mu la wax sa combat gu Lirou Diane. nee la animé Baye Abdou dina ñëw ba ba ba Badou dina ñëw. bu soobee dina ñëw. non ñooñu géejewaay lañ dëkk nañ toog kuul. non xam nga wala ñu ñëw. keroog dama dem ci Baye Aly Ndiaye billaay mooy Baye Aziz. mu ne ma ñaar ko ma ne ko am naa ñaar de mu ne koy bëre ma Adama Diouf mu ne ma dénku daan ak liiru jaam mu ne lii jaamu mag ma paaba ma ne ko non lii lii jaamu bari wax bi mu ne ma yàlla faral. yëpp nga ma Baye Aly Ndiaye maa ngi ko bu baax di ko aussi Baye Aly Ndiaye yal na fi yàgg wax na aussi. di sant aussi mm, Massata Ala Ndiaye. Massata Ala Ndiaye ñoom yëpp yaa ngi leen di sant. Eliou mm. dem na États-Unis di entraîner lan moo tax ba nga toog fii est-ce que entraîner sax. merci Lamine xam nga man tey li ma soxla fii laa koy amee xam nga étape si ni Eliou Diane dafa dem pour door entraîner wul. li ma jaaxal nag. nee na moo bii paa moo Ndiaye appartement la ko jëlal woo na ma appel vidéo. moo Ndiaye Serigne Madeleine jëlal ko. appartement kuy moo moo Ndiaye directeur. directeur yaa ngi ni toog Serigne Madeleine. moo Ndiaye ma ko si barke. directeur bu mag la de ko jëlal. barke Serigne Bamba Mbacke maa ko. moo Ndiaye dafa yor xaalis moo Ndiaye dafa yor dara. ah. moo Ndiaye yor dara waaye xam ko sax li mu yor ci camion daa. moo moo ko jël en charge jëlal na ko appartement du ko fayal saal. mu kan moo njaay ah. moo dubbee ko man barke Serigne Bamba kii macha allah ma laal euh, xeer li mu si camion am na cinquante ma njaay amut benn camion. muy njaay di jaay ay lay jaay foofu États-Unis ay lal ay lal lépp. <laughs> lal ka benn benn lalam benn panno camion ko gën a seer benn panno moo njaay yorut dara <laughs> man man bokkuma ak liir jaan moo njaay maa ne yorut dara. man ñi may jàppalee ñoo man fukki moo njaay. ah. fii laa toog màggu ma dara. ñi ngay jàppale est-ce que mat leen sax mënu leen. ba noppi kan mat leen. Ah. Fatou man mat leen. Fatou man mat leen. Fatou mat leen. waaw. doomi Kara Mbodj bi eh, ba alam mbakki sax moo njaay. moo man moo njaay. léegi yow yaa man. liiru Modou Beye moon moo Ndiaye. moo Ndiaye Modou Beye man moo Ndiaye. Modou Beye amoon moo Ndiaye. Modou Lo man kan. Modou Lo man Balla Gaye. Eh. daan na ko ñaar waaye Modou Lo ko mën. <laughs> <laughs> da ngay neexal waxtaan dama Aziz Baal Aziz Baal Aziz Ndiaye sa waay. neexal waxtaan rek. reefana dàq jé jé jé kanam man. reefana dàq géej waay. non reefan moom yàggul yàggee ko bokk. ah yàgg lii roo ko bokk. doo <laughs> dëkk fa de. moom dafa xeet moom nangal ma la dëkk. mais doo dégg mu ne nangal ma xanaa ma nan bay wax ji liiru jaan dëkkul géejawaay nangal ma la dëkk day mbuboo géejawaay ma dëkk man a géejawaay falaa dëkk parce que laat joob mi nga xam ne moom moom la waa géejawaay mu boo boom géejawaay sama xarit la di gërëm aussi sama rak ji Saliou Khoule. et doon nga ma wax boo tentee rek mer nga. non Lamine. saa caaxaan nag. ma gis nga tent ba tent sa doom. Lamine saa caam combat yi nag dama dama ko fonk parce que tey. Euh, ñu bëree bëri sax nooy yaakaar ne dama ne fi pour comédie barke Seydina Mohamed ñaari combat yi Adama Diouf ak Liu Diane bu ñu ma gisee dañu xam ne wuli mi caaxaanul parce que nag vraiment Lamine xanaa kalambo daf ma waxoon ne ma ñëwal dama bëgg na yóbbu ma ne ko noo bay bu ma daa indi foofu noo bay fii dun yi ci xeer yi may doo ci xeer yi. di ci lekk di lekk xeer bu ma neexee di entraîner fii Sénégal bu parce que nag Lamine préparation bi ma bëgg Sénégal laa ko mën a amee parce que dem dune yeeg dune ñëw dem saal ñëw récupérer dafa am solo. Bak Simba préparation bi ma bëgg a préparation sa sama ñaar combat yi muy Adama Diouf muy Lirou Diane yëpp fii laa ko mën a pare na nag Lirou Diane Bak Simba. combat yooyu daal barke Seydina Mohamed. dina gis lu mu mës gis. barke Seydina Saalum dóor yi raw yi ko dóor man actuellement nii. Mm, maa Adama Diouf. waaw pour le vingt cinq juillet. waaw Lirou Diane le vingt neuf août. astafurlah le vingt deux août. ma wax këccëb. et. Maaw Cissé ma wax këccëb. pour kañ. pour le vingt neuf août. guy gi rek rek màkk cëb. man boobu boobu est-ce que taxaw na. màkk cëb. waaw non taxawagul na des na. Mm, maaw aussi di nuyu maaw Cissé bu baax a baax di ko sant di ko gërëm nit ku baax. mais boobu pare nga pour def. waaw maaw mooy sama patron lu mu bëgg la. kon combat bi ñu ngi koy dox nii. maaw Cissé waaw maak Ketchup mu ngi koy dox. presque taxaw na. presque taxaw na parce que Ketchup da ko yor avance. waaw Ketchup da ko yor avance mais Ketchup ëpp lu doole. Ketchup moo gën a nooy beñe barke sëñ Saliou Mbacké beñe moo ko gën a nooy beñe billaahi bong bong maanaam da ngaa war a bëri le vingt vingt deux août bëri le vingt bëgg a bëri le vingt cinq juillet waaw bëri le vingt deux août waaw bëri le vingt neuf août ak këccëb ak këccëb aussi Ndiaye production mu may wax am liis jox na ma jox na ma am liise ah. da ko bëgg na def le huit août mais dama ko na ma ko bàyyi mu yóbbu ko après moom ma bëri am liis wax na de waaw parce que parce que Lamine boo gisee man gars yi ne war a bu bu ci man mooy comme ba ba ba Balla Gaye 2 nu mu def da ngay berek xale berek mag bay nag liu jaan mag la Adama Diouf ma mag la këcë presque son moroom la ma berek sama rak mu muy am lycée may leen chance aussi ko boobu aussi dama wax Ndiaye pour na ko yóbbu octobre nu def ko drapeau Amadou Sow Guillaume ca le futur maire Singa ay aussi fa fa fa fa Fallou Ndiaye dama waxoon ne ma daa bëgg ma bëri le huit août mais comme le huit août Tapha Tine da ciy bëre combat boo xam ne vraiment ba ba bawal gépp seen combat la muy moo booy ñaa di ko ci ñaanal yàlla may ko ndam parce que nag combat Tapha Tine sama combat la combat waa defoon gi la ma ne man bu ma sañoon vraiment Tapha du bëre may bëre na ko yóbbu octobre ma bëre mu yóbbu ko drapeau Amadou Sow Guillaume. mais ci loolu ba. waxtaan non Ndiaye sama staff la bokk. ok kon dama ko jàpp te dootuma ko bay sama combat ak Adama Big Pato moom yóbbu stade aussi di wax waa Réfan li la sur lendemain tabaski fa fa fa fa fa Fallou Ndiaye mooy ñëw reefan anteeg man ñuy teg galaa bu mag anteeg bawol sans frontière ñuy teg galaa bu mag reefan le surlendemain tabaski. surlendemain waaw. deux jours après tabaski. deux jours après tabaski. léegi yow sa combat buuse nga ne buuse boo ko jàpp da nga koy dóor moom. maag léegi mu taxaw jubóo naag Maaw Cissé këccëb aussi yor na avance Maaw Cissé te Maaw Cissé des këccëb dama koy rey xam nga këccëb la ma tam soxla ko. daa bari wax yàmbar la damaa bëgg dootu sinap ba pare damay gis gémmiñ gi parce que boo waxee mu ne kalambo kalambo jam la Pape Diouf Pape Dioufam la Birane Ndour mi nga xam ne mooy sama patron mu bëgg ko nangu ci man may liggéey foofu TFM di fa def fa faransa mbër ci niveau de la lutte damay tëj lamiñam ak sëñ Sall Mbacké Ketchup aussi pare naa boobu moom aussi ñu ngi ko bëgg la le vingt neuf août maak Ketchup waaw non Ketchup am na ko maag alaaji mbay mais barke Mouhamad Rasulaay maa moom mooy dax fu parce que man dama soxor la bokk maa ñu naan Ketchup dama ko moom boo wax naa ko ñëpp Ketchup mook liiru jaan ci àddina du duma bëgg daan ma parce que noo bari wax waaw maa ngi fii ci sama xarit Modou Bey moodu Bey ndeysaan ni ku baax ngi barke Seydina Mohamed léegi aada dene béton dix mille mu ne non def ko huit mille Modou yaa baax barke sëñ Bamba l'homme social a ngi nii aada Dieng Sénégal gépp seede yàlla Sénégal gépp maa ko wax man wulli ku fiy jaay suuf barke sëñ Bamba ak béton kee la mën fuuf béton baax na yomb na suufam baax na yomb na man man man maa ko wax laa wax képp ku fiy jaay beto ak koo mën a doon ak noo mën a tudd ak foo nekk béton moo du béy moo gën sa béton suufam moo gën sa suuf ba pare moo la gën a yomble parce que daf fay gëm yàlla man naa bëgg nit simple Lamine ba ki moom kilifaa ngi nii mais dafa simple léegi àll da ko ne béton dix mille mu ne non nañ ko def léegi huit mille parce que dinoo bëgg ñëpp tabax Modou yaa gore waaw Modou maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. Euh, béton ban ban nga am. béton bu ñuul béton bu weex ak selex bi. yoo koy jaayee. waaw selex bi moom ñu ngi koy jaayee tonne set mille. bu weex bi huit mille oto bu ñuul vingt-trois mille wala kese sëñ Bamba su jaay trente mille la bi mu jaay benn incha allah te dañoo bëgg ñëpp tabax waaw ñi am ak ñi amul ñëpp bu soobee yàlla ñu tabax incha allah sa numéro 77 062 18 77 waxaat ko 062 18 77 waaw 77 062 18 77 ku ko bëgg béton ci àddina bi reefan Casamance sax nañu woote képp ku ne Europe bëgg tabax contacter Modou mu andi la ko livraison bu yomb camion yu baax yoo xam ne sa béton ni mu ko sarse fii noonu lay ñëwee dara du ci dara du allah waaw la aara aara sama rakk la waaw sama rakk ju baax la ñu ma dégg wax dëgg yàlla waaw. kañ nga dugg ci liggéey liggéey bi maa ngi ci dugg 2010 waaw ba léegi maa ngi ci liggéey bi. ngeen baal ma bilaay lii sax da koo diis. bi ma ko damay def interview dama ne bul jaru ko man man moon wax bilaay da koo diis nit ku baax man nag wax dëggu si yàlla Lamine na ma ñëpp baal ku ma defal lu baax ma wax ko ku ma defal teraanga ma wax ko ma ne yaa ma gënal képp kuy jaay. béton ci Sénégal yaa ma ko gënal yow laa xam yaa ma jàppale ku bëgg béton kuy sama xarit kilifa yu mag yi Aziz Ndiaye yéen ma maa ngi naan appel jël la numéro Modou Bey 77 762 18 70 Alioune. war nga jël. 486. 67 89. 77. 486 67 89. Ada. sa digganteeg grand bi. ah billaay kulli waaw billaay kii moom day sama lépp waaw day sama mag pare nekk sama xarit billaay wallaay waaw am ma daal billaay ginnaaw yàlla li moom lépp moom la barke alxuraani karim li moom lépp lépp moom la barke sëñ Fall lu moom rek moom la billaay wallaay waaw moom laay kii trop waaw moom laay sama barke sëñ Fall waaw bilaay mooy sama lépp daal. kilifa la de téléphone baa ngi sonné mooy kilifa di gërëm bu baax moodu comme li ma wax aada booy yàlla suñu bopp ku jaay na Modou Bey jaay ku jaayul na Modou Bey jaay ku otoom paan Modou sa oto bu mu paan ku otoom paanu sa oto bu mu paan maak yow. sax bëggee am nañ ko birig waaw te birig kondo sax buñ ko bëggee am nañ ko waa terrassement yëpp daal day def terrassement aussi boo amee ay terrain yooyu defar fu mu ne wala boo ñëwee ñu defaral la ko waaw ki dee borom ki dee borom moo moo njaay moo njaay d'abord toj dara lalam yo di gërëm tuuti rek Lamine di gërëm nag ilo ilo euh, muy élevé bu mag bu nekk Sinja daf ma may terrain mais nag di gërëm aussi maire Sinja bu baax Thierno Diagne. di gërëm Basirou Ka. maire Sinja di gërëm sama waa ji aussi Basirou Ka borom encense moo brillé trois mètres njuru sama xarit Basirou Ka borom mouvement BAS Basirou Ka ba mu tuwaan pour l'homme social. xaritu Macky Sall xaritu Macky Sall di. jàppale Macky Sall ci Tivaouane Peulh di sama xarit Basirou Ka Serigne Kayla Serigne Michel gay ak yeneen ñaar ya xaw ma leen mais Kayla mooy sama doomu de Kayla yenn ngeen yegg ak Basirou lamin Lamine bas ku baax la di gërëm aussi Katim Baye parfum di gërëm di gërëm Ilo di gërëm Ilo Sow borom Sinja éleveur bu mag ku bëgg nag wala xar wala béy dama ci ilo mu jaay ko dama defar teraanga mais ilo damaa may terrain Sinja di gërëm aussi maire ba muy Thierno Diagne maire Sinja maa ngi koy gërëm bu baax Thierno Diagne moom aussi bi bi ba ilo may terrain bi moo ma defar kayit yépp kon Thierno Diagne yal na nga am jàmm yaa ngi liggéey liggéey bu am solo. maa ngi lay gërëm bu baax Thierno Diagne parce que bi ilo mayee terrain yaa ma arrêté kayit yëpp jërëjëf ilo borom Sinja jërëjëf Thierno jaañ borom Sinja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 love TapTap Send soo bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code promo